njukkal sant bokk yi fi teew yëpp sant oustaz Dame ak bokk yi ci liggéey dama wax ne kaw suuf si nuy dund yàlla nee na moo nu ko dénk nu ko dénk nu war koo mottali la ca des taxaw ci defar ko waaye taxaw ci defar ko waaye it jàpp loxo képp ku ko nar a yàq ñu jàpp sa loxo ab jullit sañuta bañ a defar ci kaw suuf waaye itam sañuta seetaan kenn kenn mu yàq ci kaw suuf moo tax moom ba mu juddoo rek nekk ab jullit la am responsabilité defar googu ñu koy defar nag dafa laaj tànn ay njiit ci waxtu jullit dundam gépp wut lu tax bu teexee tabbi aljanna mooy mission bi gën ci moom yàlla wax ne ñett salaasatun laa yukallimuhum allahu yawma alqiyamati yàlla ne am na ñett ñoo xam ne yàlla du wax ak ñoom yawmal qiyam du leen xool du leen sellal walahum azabun alim te ñi ngi ci mbugal ñett ñooñu mu ne ki ci njëkk mooy rajulun baa'a hurran fa akala thamana mooy ku jaay benn waay lekk njëgam boo koy wax ci Sénégal dañuy defe ne yaa ngi wax ci traite traite ñi daan jaay jaam ñi léegi kenn dootu jaay jaam ñi ñuy jaay mooy ay citoyen ay gor ay citoyen ay membre benn parti ay taalube ñooy ñepp léegi ñooy ñi ñuy jaay ay dootu ay gor dootu ko ñuy jàpp yeew mu yeew yeew loxoom di ko jaay mooy koo xam ne dafa jaay benn waay moo tax bu bu élection yi ñëwee da gis kenn ku ne di wane ni mu toll pour suy waxaale ñu man koo fay njëkk ko tax moo tax responsabilité bi yàlla lu nekk wax na ko mu teg ca koo xam ne dafa am dëkkandoo dëkkandoom am soxna mu mooy yàlla ak soxna sa mu ñetteele ko boo xam ne moo bu njëkk daanaka benn lañ waa joo xam ne baa baayaa imaaman aw raisan aw aw laa yubaayiuhu illa li dunya mooy koo xam ne dafa woteel buur boo xam ne wala président boo xam ne wala député boo xam ne gisul ci moom compétence gisul ci moom jub gisul ci moom ragal yàlla lam yoree tax woteel su ko joxee mu ànd ak moom su ko joxul mu fàq wala mu def ni ñu koy waxee transhumance léegi dégg naa tax ñu tudde ko benn terme waaw ngoor bi ci des mooy jël responsabilité du gan ci réew mi mbokk yi wax nañ ko ci sëriñ Abdou bokkam yi Cerno Saïd ak seen mbokk yi waaye sëñ aadi moo ci mujj 28 février 1968 la bind lettre sëñ Fallou ne ko las naa ruasa ak jumhur yéen jumhur yéen dafa bind sëñ Fallou lettre ne ko duñ ay président de la république bugguñu ko liñ ama ko gën waaye nag nii réew mi doxe su fekkee taxawuñ ci kanam njaboot gi wax ñi jiite ñu jub te jaar aw yoon buñ dajeeg yàlla ci kanam yàlla danañ wax yàlla lu taxoon ñu am taxawaay lu ci des nag mooy sénégalais moom foo ko foo ko waxee rek mu ne yàlla baax na yàlla danañu xettali yàlla dana ci wax yàlla bëgg na jullit ñi waaye yàlla nag moom day bóor boo xam ne dafa wax ne du ma defal kenn lu man def leen li ngeen man ma defal leen li ngeen mënut mooy li sëñ Baye Jaxatay wax mu ngi yedd Sénégal yi naan te yàlla kan mën na lu ne waaye nag du tax mu def lu ne